xanaa avant cinq personnes dix di daje nga déclenché ay lacrymogène xam nga ne loolu coow li yow yaa ko njëkk a xam déjà parce que li nu njëkkoon woote mooy ñu daje pacifiquement ñu daje ku nekk wax sa xalaat wax li la naqari ci réew mi lii nag wane na ni vraiment encore une fois Macky dafa lajj génnam dina ñaaw décret bii nga xam ne jël na ko tegewul fenn li ñu koy ñaan mooy mu retiré ko ne ko retiré bu bëggee jàmm am Sénégal ndax lii kanam la jëm yéen ko gisal seen bopp vous avez vu tey Thiès xale yi dañ ko def doom tey te euh, c'est c'est par des mouvements dispersés du benn organisation boo xam dafa daje organiser wu pour woote manifestation ku nekk daa génne wane sa amertume wane li la naqari donc jot na Macky Sall nit ñi waxat moom jot na kilifa diine yi waxat moom jot na xelam dellusiwaat lii nga xam ne teg na ko ci taal bi mu retiré ko ndànk pour Sénégal am jàmm. xam nga xeex bi mënoon naa gën a garaaw xam nga nit ñi jóguñu pour taal pour yàq parce que taal ay xeer teg ay xeer ay pneu loolu moo lay won ni ndaw yi Sénégal jóguñu pour yàq ndax loolu yàqul dara nit ñi bu doon yàq dañuy song ay structure song ay banque song ay nangam nangam nangam nangam mais loolu kenn gisu ko fi nit ñi dañu waree seen naqar par xëcc ay branche ak ay garab teg ni circulation bu mu dem donc. Euh, nan ko xeex nii moo gën ñu xeex xeex boo xam dañuy yàqal askan bi seen alal. dem dialogue waxtaan pour naka mën a nanu xam lan day dialogue buy woote dialogue bi lan day dialogue bala muy dialogue na retiré décret ba pare woote dialogue pour ñu xool fu ñu jëm bu bu retiré li nga xam ni moom la teg ci table ji. bu ko neexee woote ñu waxtaane tey élection yi nan lañ koy organiser ak fan lañ jëm ñun li nu mës a prôné mooy coow yi am mënta ànd ak ay élection élection yi dafa war a ànd ak jàmm dañ ko war a def ci xel mu dal comme nag dëkk bi jaxasoo na na woote dialogue ñu waxtaanee ko mais bala muy woote dialogue lii nga xam ne teg na ko ci table ji na ko retiré ba pare organiser wu ànd ak euh, mouvement yi fi nekk ànd ak yenn partie yi ànd ak waa F24 euh, vraiment teg euh, xeex lii ba ba duñ ko bàyyi mu jàll lii mënut a jàll te duñ ko mës a bàyyi mu jàll waaw non jàpp Saliou njaay xam nga jàpp ci koo fekk mu taxaw ci mbedd bi du mujju fenn ci kanam tuuti ngeen dégg ko mu dem këram loolu nit ñi euh, xam nga Saliou miin na loolu ñëw génn pour manifester ni pacifiquement ngay manifester ñu fekk la place de France fekk manifestation démarré sax ñu jàpp la dinañ la bàyyiwaat ndànk parce que jàpp gi duñ duñ ko teg fenn